président Saliou Samb waaw maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu mboolem jullit euh, di di baalu àq temps yi si dégg-dégg yi am si man euh, et puis comment je sois obligé de venir di ma di justifier wu euh, problème baa ngi bëgg a yàgg depuis 2015 euh, monsieur Ferdinand Coly daf ma porter plainte pour euh, escroquerie abus de biens sociaux et banqueroute euh, frauduleuse monsieur Ferdinand Coly dama ko xamoon ci sama njaayu mm, kër sama kër bi Mamadou Almadi di ko euh mu waxoon ko Mamadou Niang pour mu jënd ko donc si jënd bobu lañ mm, euh temps euh ce qui s'est passé moi euh, Mamadou suis et mon papier pour me dire qu'il il prend 7 de la transaction on était tombé d'accord mon papier bobou. papier man hmm? donc il a pris 7 euh, du montant hmm. de la vente qui, s'est s'élevait à, des centaines de millions de noonu et foofu lañ xamante boobu ñu jógee nous ñu commencé devenir des amis d'y fréquenter ba ñu am xalaat pour ñëw def ay euh, business su jën fekk ma am sama usine man ba pare ma amoon société boo xam ne mooy def exploitation Afrique euh, ñu beaucoup ko ma jaay par Mamadou nya mu viré 324 millions ci par yi mako ko jaay Fernand Coly n'avait pas d'argent euh, il n'avait pas de liquidité à mettre dans dans l'activité de motax soy xool suñu activité bi commencé nañ ba ñu def 1 an deux ans Fernand Coly dugalu ci ben yon xaalisam pour activité bobu doon marché euh, mais nak euh, lu mu def pour que ñu mëna a am fonds de roulement euh, dafa jël immeuble def ko en garantie mais ba muy def immeuble en garantie man tamit dama ñëw tamit yokkaat garantie bi nekk lu ñu naan euh, caution solidaire mooy su amoon problème euh, ba ñu nangu woon a waroon a jël euh, immeuble Ferdinand Coly bi man maa war a fay moitié bi par rapport à ça si bor bi société bi yoreel banque bi donc loolu mooy engagement bi ma jëloon ak moom ñu commencé di liggéey liggéey bi ça se passait très bien ensemble moment yooyu Euh, Fernand Colline n'est que un co-gestionnaire co-gérant il avait les mêmes droits les mêmes obligations que moi, les mêmes devoirs euh, euh, les mêmes possibilités ci société donc il faisait des actes de gestion avec man di dem banque di retirer xaalis yu jënd jënd ji chambre di liggéey usine bi bureau maximum, sama bureau ñoo taqaloo nit bureau usine bi sama biir bureau laa ko aménagé benn bureau ñuy comme ça di def ay réunions, d'exploitation de stratégie il envoyé jën bi et tout se passait bien Mon l'entreprise l'avait pris en charge par rapport son par rapport à sa sa, location Il a fait 250 000 francs par mois Euh, qui bi tamit donc francs par mois euh, son gardien euh, télém internet tout les déplacements quand sa famille venait en vacances tout ça euh, les billets d'avion tout ça veut dire que donc une activité qui marchait où on tout allait bien à un moment comme je dirais, euh, tu sais quand tu es dans le milieu du business les produits halieutiques c'est des euh, produits des denrées périssables nous euh, envoyé du poisson à Follet, à comment on appelle encore à Abidjan ñu am une saisie ñu am na yoo xam dañ ko jaay prix boo xam presque trois fois moins cher son prix normal parce que jën bi no euh, rafetatul woon am boo xam ne dañ koo mujj jën jël ko jàpp ko euh, saisir ko lakk ko ça veut dire que détruire ko ça nous a porté quand même préjudice ay et ay cent plus de 200 millions de de pertes et loolu lu koy firndeel mooy certificat de saisie baa

Euh, nous on était tous abattus ah hein, Ferdinand Coly ñu nekk suñu bureau toog xamatuñu ñuy def quoi donc boobu vraiment métti mais boobu sooy xool perte nañ xaalis mais amagul impact sur la vie de Ferdinand Coly parce que euh, banque bi retourné wugul contre moom parce que boobu ba moom comme ko deful xaalis moom perte m'a su fi yemoon foofu rek moom du perte dara yaa may dégg ñun ñoo perte man ñu nag ñun ñuy jël suñu alal ñu nag Mamadou Niang ñi defoon ay ay liquide man man won sama usine ñuy liggéey pendant tout ce temps là sama usine ñu war koon fay 10 millions par mois pendant tout ce temps là 2 ans yo xamne fay ñuko dara ci ci ci ci ci ci ci ci mois yooyu yëpp mu nek 240 millions yo xamne entreprise bi daf mako ko fay man fay ñuko sama société sangoma té ñu ngi doon utiliser sama matériel sama lepp lañu utiliser té awma ci dara donc lool yépp ay manque à gagner la ay pertement la bu ngand la pendant 2 ans mais lool yépp ñun ñoo pertone man ak momadou Niang entre temps Mamadou Niang bi nga xam ne dafa jënd ay part ci société boo xam ne fayit la mu ji def sa tamit di andilu ko dara yaa may dégg maintenant boobu Fernacoli moom comme ko dugalagul woon dara ci xaalis deful xaalis moom garantie la andi woon donc moom moment boobu amuloon impact ci moom mais nag comme banque xam nga banque soo toogee ay moment yoo xam ne fayoo banque bi rek banque bi nag day xool garantie bi lay dem exécuter mu dem retourné wu ci Fernacoli ne ko nag dañuy jël jël sa kër Et puis, comme nous ils ont profité aussi de, son, de, sa naïveté, de son manque d'expérience par rapport à faire à business, parce que Fernand tous ces genres de, de choses-là, nous isolé par rapport à Man, dem andi ben montant de 461 millions alors après alors que le prêt initial était de 395 millions il y a eu des mois depuis de, 8 mois yo fait à 8 millions Qu'est-ce qu'on fay moy société bi dans son exploitation. non yow wala moom. non Nous ñun ñëpp la woon ñu parce que c'est la société qui le faisait Maintenant, si maintenant problème bi banque au lieu de nous donner le montant le bon montant la banque a exagéré sur les montants def ci a ay agio ay intérêts Il y a 461 millions ce que j'avais dénoncé donc on doit de l'argent à la banque mais pas à ce montant là donc il faut qu'on renégocie avec la banque qu'on dénonce ce montant là euh, la banque n'a rien voulu comprendre. Ils sont avocats, mais il faut qu'on aille devant, la, justice pour, montrer, pour, que faire, faire, faire le truc des, balances. Ça veut dire, euh, si faire rapprochement euh, des comptes, il fallait comme ça. Il y a une mais après, Ferdinand Colli n'a pas voulu parce que pendant ce temps-là, la banque lui a demandé de, euh, que ne salu semble de dalay dalay nax parce que ce qu'il yow il y yaay a perdre ce ce ce ce ce immeuble donc tu seras la risée de tout de tout le Sénégal donc mieux vaut que yow nga immeuble fay sa bori après nga retourné wu continuer ngay Fernand a voulu faire ça et finalement il paraît qu'il a payé par un système de euh, sur les euh, sur le sur le bien dem ba fay 560 millions de francs CFA jaay immeuble 560 millions fay ko banque Bon, c'est ce qui est malheureux. Ça veut dire que la banque a abusé de son truc. Et puis moi, ce qui m'a le plus choqué, et c'est Ferdinand Colli en personne qui me l'a dit, et, il y a un journaliste à qui il a dit ça, qui est au niveau de, euh, de l'observateur, parce qu'il était parti là-bas au début pour, quand, il, portait presse, il lui a dit que, que c'est le directeur général de la banque à l'époque, de EcoBank, qui lui avait trouvé l'acquéreur. Et en même temps de ça, il a donné 35 millions de commissions au directeur général de cette banque-là. Ce qui constitue un délit d'initié. Ils ont utilisé leur position de dominante pour faire. ont fait 300 millions ci donc quand j'ai vu ça euh, euh, Fernand était très fâché parce qu'il a perdu son immeuble, il a vendu son immeuble alors qu'il ne voulait pas le vendre. Il était très fâché par rapport à ça. Il m'en voulait énormément. Il m'a dit Zal tu ruiné, je suis dégoûté, euh, je vais quitter le Sénégal, j'en ai marre. c'est un pays de. Voilà quoi, ce mot-là, entre guillemets, je quitte comme ça définitivement le Sénégal. Je ne veux plus rien entendre parler ni de poisson, ni de, personne, ni de toi, personne. C'est ce qu'il m'avait dit. Il a dit qu'on a fait Je te comprends. Ce n'est pas une bonne attitude. On a perdu, c'est du business, on a perdu. Mais dans le milieu des poissons, tu peux gagner beaucoup d'argent rapidement, comme tu peux en perdre. On a perdu. Essayons de trouver une solution, essayons d'avoir un peu plus d'argent pour remettre la machine en marche. Euh, il n'a rien voulu comprendre. Moi, quand on une banque, il suis même nous avons commencé à Les gens sont les gens Je perdre. Nous avons gagné cette activité, nous avons finalement retrouver comme ça. suis nous avons gagné cette activité, nous avons gagné cette euh, pour préparer sa retraite sportive ñun tam ñu xool naka lañ koy pour mu bañ parce que c'est un problème moral qui se pose sur ce côté là D'accord, on a qu'il loolu yëpp ne ko nag si vous voulez sax ngeen trouver ñu trouver un nouveau gestionnaire, un nouveau gestionnaire qui vient gérer l'usine ça me dérange pas mais nee a que que nañ liggéey que ku nekk gis sa ci bi il n'a pas voulu le faire après il paraît qu'il y a eu des politiciens euh, qui sont euh, et des gens qui l'ont poussé à, apporter plainte pour escroquerie c'est ce qu'il a fait en 2015 donc de 2012 en 2015 Fernacoli n'a rien fait et comme par hasard c'était en 2014 que j'ai commencé à être euh, euh, dans la politique et automatiquement on amène le dossier sur un plan d'escroquerie euh, par rapport à ça je suis allé me défendre devant les juges. justement affaire juge c'est parce que tu fais de la politique que mon

dënkuñu ma alalu réew boo xam ne dama koo gérer li affaire privé la sama sama alal la ak alalu Ferdinand Coly ak alalu Mamadou Niang ñu ko doon def pour pour gagner ci ay xaalis dañoo waxoon tam ne gagner bi dañ ko war a bokk perte yi dañ ko war a bokk yaa may dégg suñ gagné woon ay suñ defoon ay bénéfice est-ce que mun naa tere bañ jox Ferdinand Coly ci loolu. waaw mais pourquoi que suñu perte ñu bëgg a jël le teg ko sama kaw pour affaire escroquerie a ngi dégg la justice bi nous mu man la gën porter préjudice parce que man depuis 2015 man mi xalaat ne dama nekk ci yoon politique pour am dara ci politique ay dombal tank ci politique di def tout pour pour pour am xarañ ci politique chaque fois que ay élection agsi ñu génn watal ma mbóot boobu ça ressemble dafa turandé Ferdinand Coly ça Samb ressemble la kon man moom la lenteur je on ñuy wax man mii la euh, yàqal su protéger état su je protéger wala juge jugeait, protéger comme ni ñuy wax dañuy jël sax dossier en deux jours benn jour lañ non lieu et puis on passe à autre chose mais est-ce que dama am est-ce que dama am en enquête qui continue avec des expertises comme ça qui continue pour savoir ce qui est Mais si je suis le juge ne m'a Saléo, Fernand Collé, vous avez une machine de glace, dem jaayko ma ñëw prouver le contraire euh, que machine glace bi maa ko moom virement virement banque bi ma ko fayee mu ngi nii sama société Sangomar Fichi boobu ma koy fay bi ma ko jëndal sama bopp maa ko moom sama facture courant yi wane ne maa ko moom facture société baa ngi nii bi jógee turki ba ma koy jënd ma prouvé né ma mom machine yi machine yi ba ma koy njëkk am usine bi ba ma koy am c'était en 2005 2006 kan moom ma ko financé woon crédit mutuel bu Sénégal bu ki bu Sénégal bu ki nek bu nek ki nekkati. jowal yaa ngi may dégg fofu ta dem na ba dugg ci lo xamné né man sama yaay ba muy dund mom wax né euh comme da nga def investissement yu bëri mais. Eh, titre foncier que ga que que papa bi mu ngi famille bi mais jël ko nga beaucoup ko foofu tamit comme liggéey bi comme famille bi y a yaa leen yore ma jël ko dem yóbbu ko en garantie pour 50 millions fay naa depuis mais titre foncier bi te jëlee gu ma ko sax yaa may dégg loolu ma def ko moom mu bugg a mon mon mon machine et puis il faut être raisonnable fay naa ko que su nekkee man ba quand même 2011 2012 ba mu nangu man may francs par jour ci ay recette machine glace Du côté de poche te ñu ensemble kon ne na fayda il faut il faut pas xam parfois la logique de de 2011 à 2015 nous sommes tous les jours di ànd di bokk comme ça des kaf di dem di ñu am ba am problème nga dama la yow dama nga xaar ko di lekk xaalis boo xam ñoo ko bokk te demoo sax ci police wax leen ko wala war nga ñëw sax poñe ma ne ma Saliou mais qu'est-ce que tu es en train de faire te mosoo cee wax te mosul laa déranger man ma koy jël pendant tous les jours cash la de liquide lañ ma koy jox espèce lañ ma koy jox tous les jours ma koy jël di ko lii di ko yore di ko jëfandikoo ngeen xam ne kon loolu xam na ne loolu yenul maanaam ça veut dire que xam na ne loolu bokk ci woon man dama xamul kan moo ko sax xalaatal ne mu war a wax yooyu mel noonu parce que j'ai pas compris parce que comme soo waxee est-ce que il faut nga inventer lui def je pense que les mal conseillé di dem détails mais non, première chose première chose moi, wax tamit ne juge bi dama biens sociaux mais man ma juge bi ne ko euh, perte perte dans les deux quelques millions comptable bi justifié ko

si tu es une personnalité, un footballeur international, si tu es, si es un pêcheur ou bien un, un agriculteur. Pour moi, c'est la justice ne va Si on a droit, droits, si on a yon, prouver. Parce que moi, je m'a accusé. Et j'étais dans l'obligation, parce que l'institution, il paraît que c'est à ça que là. De me venir prouver ce que je Alors que moi, mon mon mon mime porte plainte, ça, je ne peux prouver. Moi, je suis prouver ça, que c'est ça. Yalla sutral ma ba peux ma am ma am matukaay ba mën ko ñoo tek li dañuy baye juge bi nak moom mooy kilifa bi moy xol est-ce que man lu ko jox doy nak wala doyu ko su ko mu xam num ci def suko doyul mu yobbu ñu dem ci jugement ñu dem euh, comme par rapport à ça. ok alors euh tay euh, si sa biir wax ma ngi dégg nga ne euh, ngay def politique ay politique entre guillemets kon da nga bëgg wax né euh tay euh, Madame, am a ay politique yo xam dañ ci rof contre yow comme mom ni ko xalaatee ñu lay mais yow da nga contre yow la. non c'est Ferdinand Coly Moi, ko en personne on a mangé ensemble Vous ne attention il y a des gens qui sont haut placés qui sont dans ce gouvernement là qui sont tapis dans l'ombre et qui te veulent pas que du bien. Ces mots-là qui, qui m'a dit que du bien, il ne veut pas que du bien. Donc fais attention, ils viennent me voir pour que j'essaie de te couler, Moi, si je voulais te faire du mal, je leur ai fait, Moi, je comme ça, mais faire Ces gens-là, je m'en occupe pas. Okay. alors benen laaj bima la bëggoon laaj tey euh, dañ la euh, Ferdinand Coly daf la accusé hmm. alors tay si toutefois que tey ngeen demoon ba affaire bi jeex ba accusation yooyu euh, maanaam nekul hmm. juge bi ne la Saliou Samb tu es blanc comme neige est-ce que tey da nga koy da nga koy songaat wala nan ngeen nan ngeen fas nan nga fas yéene. non moi je suis pas non non non pas forcément pas forcément ma ma situation bi ça me rend très triste. j'ai l'impression que euh, mon ami je suis en train pour me défendre je suis en train de salir pas salir ça, mais je suis en train de de dire des choses que je ne pas wax j'ai très mal actuellement parce qu'à Fifet on a on a partagé des, des moments mais de qualité ensemble c'est mon ami Bon, nous def euh, business on avait envie de que ça réussisse on avait des projets C'est une pareille l'île ñu def pareille quand on gagnera de l'argent comme ça c'est normal on voyageait ensemble États-Unis ensemble on est allé on est ensemble euh, jusqu'à Guinée équatoriale pour aller marcher ensemble à Paris ensemble on était prenait même on était content yaa may on était tout le temps ensemble. Ablaye entraîneur Sarr ton jumeau Où est ton jumeau ça veut dire que donc le fait de parler je peux vous le jurer sur le Saint Coran le fait de me voir ça m'a fait énormément mal parce que di mais me dit. moi médiatiquement je fait passer pour le pire des des salauds te mënumaa défendre mënumaa wax Moi j'avais préféré ñu dem yóbbu ko yóbbu j'avais préféré yóbbu document et ci juge bi pour que juge bi atteigne rek ci lu ma accusé ma ma seetal sama mu mais pourquoi on a transféré le débat sur la place publique. ñett ngeen woon Ferdinand Coly Saliou Samb Mamadou Niang et Mamadou Niang dans tout ça. non Mamadou Niang il faut comprendre une chose Mamadou Niang c'est aussi une victime. Il nous a fait confiance. Il a préparé sa retraite Maman n'a jamais mis le pied à l'usine n'a jamais rien vérifié par rapport à ça. mais tu as oublié ko ci dégoules là. non parce que parce que mon, il est très bien conseillé parce qu'il a des conseillers qui avaient compris que dans le business ay wax des ci justice baaxu ci Mamadou Niane n'a jamais voulu aller devant la justice dañ ko ci wax loolu rek commencé wax na à un moment mais maman il salu ci woon par rapport à ça dañ ko bëggoon na dugal ci ay déclats yooyu mais maman il sait que et et je me suis engagé en moi parce que dama ko dafa ma jaay ay part su ma nekkoon ma ne dafa ma jaay et pas rek yoralu ma ko dara déedéet c'est un problème moral qui se pose man j'aimerais bien et je suis en train de le faire comme je suis en train de rembourser les clients moi-même clients yi ñu yoralam xaalis bul traité yoral xaalis man lui semble, par le biais de mon entreprise malin vais envoyer envoyé Sangomar à euh, remboursé c'est une dette commune parce que l'argent ce n'est pas forcément ce qui est le plus important Moi, bor suis un fayul fii di nga ko fay il nous a fait confiance il a perdu de l'argent par rapport à ça sa retraite donc nous avons war nañu ba xool comment on doit être assez responsable pour que affaire bi marché waat ba moom sax suñ ko suñ su nekkee ne mënu mënatul continuer sax ñu delloowaat ko xaalisam boobu loolu mooy lu lu lu rafet ci ci mbir est-ce que dégg nga fi mm-hmm. donc Ferdinand Coly aussi la ko yor c'est pareil aussi pour Ferdinand Coly Ferdinand Coly tamit boobu muy ñëw di jël immeuble am andi en garantie dafay amoon yaakaar par rapport ci business bi business bi marché wul am na nu mu doon demee d'une manière plus intelligente plus plus intelligente c'est temps yi ñu topp de perdre fii di à gauche à droite peut-être qu'on aurait déjà pu régler le problème parce que mon l'erreur qu'il a faite moi, boobu ñu amee ba mer na rek dafa wax client yi nañ porter plainte contre moi man sàcc a lii clients yi dem taxaw bëggatuñu avancer il a fallu que les clients ma waxaat ak ñoom di rembourser pour montrer ma bonne foi et ils sont prêts à reprendre euh, le moteur. toog fii doon wax yow rek benn client bu may oo di waxaat euh, ay kañ lañ koy joxaat ay là quand il comme ça. Donc je suis en train de, de faire face à, mes responsabilités par rapport à ça. Donc, comme nous il faut que les gens comprennent. Euh, Fernand Colli, qui le fait, tu ne même pas lu mu war a fay lépp ñaata la parce que lu mu fay pour moi d'accord accord ma ci 560 millions une fait fay parce que yoraluñu 560 millions banque bi mais wax naa ne suñ demee nangoo toog ñu xam

par rapport à ça man je reprends mon activité lii mu nekk derrière moi. mais et que je passe à autre chose. yaa ngi dégg ma ne man je suis un chef d'entreprise je ne sais pas faire autre chose que ça yaa ngi ma li ma am daf ma leew dama bëgg suba su ma demee ba dugg sama bàmmeel duñ ma laaj lii mais leen lañ may laaj lu lu sama diggante ak Fernand wala sama diggante ak Mamadou Niang c'est important lu may wax nii yaa ngi gisuma la moo ma mais parce que cette fois-ci c'était trop en 2017 je nañ ko waxuma ci En 2018 je jot tout wax tuuti ba en France pourquoi j'ai parlé de superficielle, je manière superficielle pas rentrer dans le détail mais depuis vendredi man suis ma dañ ma yee en France mais mais il faut que tu réagisses mais pourquoi quoi Mais Fernand il est en train de détruire, il y a des gens derrière. Ça, tu sens que c'est une cabale contre toi. Parce qu'actuellement, le président, dès qu'il fait une nomination, peut-être qu'il y a un tuer. Si tu fais, si tu fais ça, le président ne va, plus, ne va jamais te faire confiance. Non, je réponds par rapport à ça. Je ne le fais pas par rapport parce que le président a fait une nomination comme ça. Mais comment on va dire ça La moitié est par rapport à ça. Nous a plein de comme ça. n'en sais rien du tout. Je n'ai pas entendu ni le président, je n'ai pas parlé avec ni personne man j'ai fait mon travail ça veut dire lu wax ni the job is done le travail a été fait man ak sama yeneen responsable naataangoo yu nekk Mbour on a fait notre travail lu ma war a am dama koy am donc nit ñi nekk ci ginnaaw di jéem a sama der pour des raisons politiques nañ ko bàyyi parce que président ça ressemble lu ma war a am man lu am ah hein? mënu maa lekk lu ëpp sama wërsëg te sama wërsëg nag yàlla def na ko ba pare. man naa xamul rek lan la ma euh, man naa xamul lan la ma dencal rek xam la moo tax may jaar fii à gauche à di lambatu fii rek mais président moom xam na euh, kii ma nekkati euh, kii xam na lu ma lu ñu dencal nekkati yàlla xam na lu mu dencal ak lu mu nar ci man sama sur le plan politique lu ma war a am yàlla lii na ko may jël conseil départemental ñu ma koy jox je je ne le président Macky Sall avec Omar Youm ñoom ak ak ak ñoo waxtaan ne il faut que jox ma Sall yow yaa war a nekk président conseil départemental je voulais pas man ay ay ay ndombal tànk titre bi intéressant xam naa intéressé la quintessence de de ce que ça ça veut dire euh, de de ce que ça comporte liggéey boobu xam nga fu ma ne chaise boobu naka laa cay toogee naka laay amee leen njëriñ poste boobu man loolu moom intéressé euh, jërëjëf suis euh, le euh, président Saliou Samb suis euh, le président stade de Mbour président président conseil départemental ci problème bi nga xam ne opposé à qui nga Ferdinand Colli, ancien international merci beaucoup